ñu dalal mën Mohamed Ndiaye jërë ngeen jëf coronavirus baa ngi bëgg a jéggi dayoo anki dina kay nañu mbir mi mi ngi aw yoonu ëppi loxo l'affaire se complique mooy li journal bi bind ci xëtam mu njëkk Vox Populi nañu situation d'urgence nationale ca la ñu toll juróomi cas coronavirus lañu doon wax ci réew mi léegi ñoo ngi ci juróom-ñetti cas coronavirus fukk la woon ñu faj ñaare ca Touba Vox nañu fa la corona bi gën a lawe ne moodu moodu bi ko jële woon Italie dugal ko ci réew mi ko Touba wàll na ko yeneen juróomi nit libération nañu juróomi nit yooyee mu ko wàll ñaar ña ay jabaram la kenn ki doomam la kenn ki rakam bu jigéen la ka ca des mbindaan la mu doon liggéeyee ca kër ga moom moodu moodu biit am na ñaar fukk ak juróom-ñett ci ay mbokkam yu ñu quarantaine am na it yeneen juróom-ñaar fukki doomi aadama ak benn yu mu amal contact bu mu fi de la santé ñoo ngi leen di saytu ak di leen surveiller journal bi bind na mbir yi ak jamono ji doy na waar Sud Quotidien ne ko ab tool kay ngay wax magum waar ndax bilan bi jëm ci coronavirus bi mi ngi gën di law di gën di yokk di gën di dis ci réew mi ne démb ci alxames ji nemmeeku nañu fi yeneen juróomi nit yu corona journal bi bi tegal ñu ci ne ci déndub Afrique de l'Ouest bi Sénégal mooy réew mi fi ëppale cas coronavirus la Sénégal ne ko Touba it mooy bi ko fi ëppale ci Sénégal témoigné nañu fa la bilan bu ëppee ko fa am na it yeneen juróom-ñaar fukki nit ak lu teg yu ñu teg ay bi fii ci réewum Sénégal juróomi cas positif yéenekaay bi dem ci ba dañu xamal ne juróomi yu njëkk am ci réew mi am nañu contact ak lu toll ci junni doomi aadama ak ñeent fukk ak benn ngir xeex ak coronavirus bi léegi ko nee nañu xalifa général des mourides di Serigne Mountakha Mbacké joxe na ñaari téeméeri million état bu Sénégal la ko jox ngir jàppale ko ci xeex bi muy xeex Covid 19 bi Le Quotidien nañu ñax gu waw nar naa lakk lakkaale gu tooy bu mu xam ne coronavirus bi dafa salfaañi lépp takk bi ci journal bi joxe moo di aji màkk ak ren gi ci suspendar ko maanaam aj ko ci ñu jëm libération ne ko xanaa geneen aj kay waaye gu ren gi moom aj na boppam bu nuppi l'observateur nañu coronavirus bi i loraangeem yemul ci loolee jàppande ne seen mbokki immigré yi leen daan yónnee xaalis ba ñuy dunde weer wi lu ñu leen yónnee dana leen tëj ci ndax ñu bare ci ñoom liggéeyuñu obs teg ci bind ci xëta bu njëkk ne Sénégal am na fukki cas coronavirus confirmé juróom-ñaar fukki doomi aadama ak benn yu ñu fi isolé ak yeneen juróomi téeméeri nit ak juróom-ñeent fukk ak ñett yu ñuy surveillé lu jëm ci xew-xew yu mag yi dajale mbooloo mu bari ci réew mi te ñu bari jàpp ne dañu ko war a dàq ba jëmmi jamono Seydi Gassama bu Amnesty International mi ngi ñuy wax ci xët mu bi moo a am fulla ak fayda ak mat gu toll ne tere bépp ndaje muy dajale mbooloo mu bari ci réew mi ba ca kanam ci kanamu journal bi kàdduy président Macky Sall mu fay wax naan màkk tëj na ay buntam feebar bi ñëpp la laal bàyyi leen nuyoo bi suur soine ko wax ji du loolee wax ji mooy nga wax nit ñi ban taxawaay nga fa yéene amee ci li comité national gestion épidémie wax jëm ci ñu tere ndaje yu mag yi ci réew mi foofee fa la histoire di xaar foofeet fa la nit ñi di xaar Diop Isaac ma nga ca kaso ba détournement de mineur ak corruption de mineur te am na nu muy demee kaso ngiru dund di perpétuité la ñu koy tëj ñi mu seqal coow la di jay na ba balde ak compagnie lise ko nee nañu ñoom kenn téyewu leen bàyyi nañu leen ñu dem maître Ciré Clédor Ly di avocat bu jay na ba balde ni xët njëkk journal bi jay na ba balde dafa bëgg ragg ab deram li ko ñor mooy doomam ji mu ëmb bu juddoo am bàyyi savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia expert groupe voyage ak seen marque de référence ñoo leen doon may li ci yéenekaay seen revue de presse ñu ànd ci ak El Hadji Ahmed Aidara toll juróomi cas coronavirus lañu doon wax ci réew mi léegi ñoo ngi ci juróom-ñetti cas coronavirus fukk la woon ñu faj ñaare ca Touba Vox nañu fa la corona bi gën a lawe ne moodu moodu bi ko jële woon Italie dugal ko ci réew mi yóbbu ko Touba wàll na ko yeneen juróomi nit libération nañu juróomi nit yooyee mu ko wàll ñaar ña ay jabaram lañu kenn ki doomam la kenn ki rakam bu jigéen la ka la mu doon liggéeyee ca kër ga moom moodu moodu am na ñaar fukk ak juróom-ñett ci ay mbokkam yu ñu ne it yeneen juróom-ñaar fukki doomi aadama ak benn yu mu amal contact bu mu fi ñëwee ba tax ñooñee waa ministère de la santé ñoo ngi leen di saytu ak di leen surveiller journal bi bind na mbir yi ak fi ñu tollu jamono. seen revue de presse. ñu ànd ci ak El Hadji Ahmed Aidara. bismillah coronavirus ga day ah ngay commencé di talaata day enquête yéene kaa ne en ay mbiram mi ngi commencé compliqué de sur quotidien ne dëgg la parce que bilan ba day ma nga commencé diis nag dëggantaan termine yéene kaa ne en tout cas day coronavirus jooje waaw daa dem ba diwaanu Touba ke daal dafay def kër maar di taali fa la dëkk de parce que lu tolloo juróom benn ci ay doomu aadama day jàngoro ju dugg allahu akbar la ilaha illallah juróom ay doomu yoo xam ne ngi leen bàyyi xel junni ak ah. am jàngoro jamono joojee ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett ñoo xam ne day roppalaan nga lañ wàcc waaw na ngi leen di contrôler lu tolloo juróomi téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett laa ni la xel tey ne ca ñoom ñu ngi dama ne la Sénégal day fi nekk nii waaw lu tolloo fukk ci ay doomu aadama jàngoro jo na leen te juróom benn kaane dama ne la Touba ngay toj corona jàngay toj laa la wax lu tolloo juróom ci ay doomu aadama yoo xam ne kon jàngoro jo ko doon xaar rassemblement religieux waaw waaye xalif général u murid de ñaari téeméer ci ay millions la dimbalee kon gouvernement bi la terminé yéene kaay sursa 24 heures waaw nañu Serigne Mountakha Mbacké day ah dimbalee na gouvernement bi lu tollo ñaari téeméer ci ay millions le témoin yéene kaay ne gis nga France ge waaw Emmanuel Macron de daal dinay tëj nag école yëpp ba ca université dama ne la gis ci daanu Maroc ge waaw ndaje yi nga xam ne kon ay ndaje taxawaayu aji màkka ga ah, maa la ko wax l'observateur ne aji màkka ren gi la boo sàgganee rek maa di taali dama ne la Arabie Saoudite bind na lettre Macky Sall laa la wax am na ab ndaje bu doy waa buy am ci diggante bu waaye sis yi la bi ak ministère affaires étrangères libération yéene kaay ne Sénégal tey ah daal dinay dakal nag annulé la demu màkka ren gi la maa di taali waaw waaw dama dootul yàgg di nga gis Amadou Ba ministre affaires étrangères te daal di def ko ab déclaration xam le ne Sénégal aji jàngoro ju dugg jotuwaa day waaw daal dinay wàllu jabaram wàllu doomam wala ay xaritam la ilaha illallah la tee mooy yéene kaa ne gis nga Italie waaw lu tolloo junni ci ay doomu aadama ñàkk nañ seen inna lillahi wa inna ilayhi rajiun le quotidien yéene kaa ne gis nga corona ji ah daal dinay jaxase nag laa la wax ginnaaw ba ñoo ajee kon seen umra googee daal di koy dakkal ca Maka waaw moom Arabie Saoudite day daal dinay bind nag réew yi nga xam ne kon maanaam aju Maka gi lée bokk ne leen nañ leen niilal nag Maka googee yéene kaa gi ne te nag attention dàqu aj aji màkka ren ngi libération ne day góoma de sénégal ren aji màkka gi du am yéene kaay ma jamal jaa ngi ne waaye daata Medina Gunaas Sunen bi la looloo jaaxal na kilifa yi nga xam ne ñoom lañ dénk wàllu wér yaram ca Vélingara gee laas ne en tout cas Touba day waaw jàngoro daal fa dem toog fax moo tax président Macky Sall ah nee na bàyyi joxe loxo bi bàyyi leen joxe loxo bi Seydi Gassama ci grand place waaw nee na nguur gi ci boppam kon moo war a nekk jàmbaar tak fitam di niilal tout cas église bi day nga xam ne ci gémmiñ lañ ko doon jëlee baisse de paix bi waaw bàyyi nañ ko de dama ne la ci boppam kon ñoo fi nekk di hésité laa la wax Macky Sall ne Macky dee tëj na buntam feebar bi ñëpp la mën a laa laa la wax bàyyi leen nuyoo Seydi Gassama ne ko yéen gouvernement bi yéen war a teg seen fit waa kilifa diine dëgg ñu nii seen ndaje yi la critique yéene kaa ci benn fan waaw juróomi doomu aadama yoo xam ne kon jàngoro ji dugg na leen ca diwaanu laa la wax doy allahu akbar te lu tolloog ñaar fukk ak juróom-ñett ci ñoo xam ne kon ci njabootam bokk dee daal dinañ leen mujj beex am na beneen sénégalais boo xam ne ca diwaanu Italie la jógee waaw ña koy analyser de source ané en tout cas Macky Sall mi ngi jàkkaarloo ak am way wayu rëy jàkkaarloo tamit ak mbir fi yàlla yi termine kaa ne comité bi nga xam ne nag moom lañ dénk wàllum organisation Kazu Rajab gi waaw nee na bàyyi na lépp ci loxol Serigne Fallou

ilaha illallah xel tey na de moo tax loolee dañ ko war a leeral tey lan moo tax ba ñi nga xam ne ñoo jege woon touriste boobee ci hôtel teeru bi daal dafa leen ay des en tout cas foofu dee liñ bëgg daal mooy ku leen aar xale yi réew mi tamit dee war nañ leen aar de ubil évidence yéene kaay nañu gis nga émission seen petit bi ah ay jiraawaali rek la def ñaata ay boroomi xam-xam kon ñoo yëglu ndax émission bi la docteur Adja May Ñaan Njaay bindkat la la ay photo yooyu doy waar lay def waaye bu ndaw tamit bu seen bëti gàlle la mu wax ci ëmb jay naa bi la doy na waar yéene kaa gi ne xam naa ne musique daal ak fecc ak làmb waaw du jëmale Sénégal kanam de leesi ko yéene kaay na joob day fanaan na guddeem gu njëkk ca kaso ba jay naa daal bàyyi nañ ñu ñibbi doy na waar li doy Times nee na mooy suñu wàllu koom gi la en tout cas direction générale des day indi la doxalin gu bees yaatal waaye suñu junni cinq cent sa matu ko ay quatre cent cinquante quelque yéen a war a yokk seen fulla ak fayda rek <laughs> waaye Abdoulaye Daouda Diallo na xam ne ak lu gars yi bañ a fay impôt impôt impôt impôt impôt impôt impôt pétrole bi moom sénégalais yi mënuñu koo fàtte moo parce que suul gaz du ko teree xeeñ te troisième mandat tam dañ ko fiy tere rek boo paree moom yoo xam ne mbir mi romb na juróom-ñaar fukk ak benn yoo xam ne fi mu nekk nii ne buur teg leen bët ak yoo xamante ni nii kon ca roppalaan ja yi gis nga ko ñu ngi leen di juróomi xam ne xel tey